kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM amaan mbégte ak kontaan tey ànd ak yéen si seen euh, rubrique euh, santé bi nga xam ne moom mooy am euh, fii nga xam ne mooy rajo UCAB FM ngeen ànd si ak docteur Serigne Mor Gaye clinique Magui Mag Mbacké tey nag ñuy ñëw si boo xam ne thème bu am solo la muy paludisme paludisme nag bu ñu ko waxee mooy sibro nekk na feebar boo xam ne mën naa ne sonal na askan bi tellement que ne léegi sax ku yaramam di tàng rek da nga naan dama sibru fekk na sibru si benn feebar la ci yi nga xam ne day def yaram bu tàng loolu mat a xam la sibru nag mooy lan sibru ab yo moom moo koy joxe mooy vecteur bi maanaam moom mooy relier par exemple booy dem Touba ak ak ak Mbàkke dafa bu leen relier tëli boobu ngay aw pour mën a dem léegi nag pour nit ki mën a am sibru yoo boobu il faut mu jël koo xam ne dafa jël deretam jël jox ko koo xam ne sibru pour mu mën koo wàll sibru bi ndax boo xoolee feebar bu bees bi ni muy wàllante mooy sëqat nit day sëqat bàyyi fa ay particule yow boo ko nooyee nga mën koo jël waaye sibru tamit dafa nekk feebar boo xam ne yoo bi muy anophèle femelle kon képp koo xam ne yoo màttu la rek doo sibru waaye képp ku yoo màtt rek jàppal ne mën ngaa tombe mën ngaa nekk mën ngaa am sibru Euh, yoo ba nag moom lañ naan anafel femelle yoo boobu nag fi muy jugee mooy yi nga xam ne mooy ay taata taataaw ndox yoo xam dafay yàgg wala tey dañit nekk si garab moom dafa bëgg fu feex moo tax ñi nga xam dañoo am ay garab di ko rosé garab bi sëq trop jamonoy nawet bi dañoo war a def di tel sorte que dañ sëqaayu garab yi wàññeeku bu baax a baax taataawu ndox yi tamit wàññeeku bu baax a baax loolu mooy nekk si prévention yi sibru nan lay manifesté woo si nit comme niñ niñ ko xamee mooy yaram bi dafay tàng sa yaram dafay tàng boole ci tamit man ngay ñaq man ngay liw comme yaram bi bu tàngee jékki-jékki ngay ñaq ngay liw dafa am na ñaari xeetu sibru paludisme simple moom la ñu wax nii bi nga xam ne moom mooy sibru bu oyof bi moom li nga xam ne mooy yaram buy tàng lay ëpp lu muy manifesté woo des fois sax mën na si boole ay wàccu waaye wàccu yi tamit mën naa bañ a bari noonu wàccu yi tamit caractère bi du dangay ngay lekk rek di wàccu man ngaa bañ a sax wàccu loolu am solo la am na ñoo xam buñ lekk rek dañu wàccu waaye wàccu si bu da ngay wàccu te doo lekk te da ngay gis ne wàccu bi dafay am couleur bu xaw a verte moom moo ci ëpp siburu nag loolu mooy siburu bu oyof waaye am na yeneen siburu yoo xam ne siburu yu grave la yooyu nag euh, pour ñu bàyyi xel rek ndongo daara yi dañuy gis ne si bari daf leen di dal daf leen di dal lu bari hôpital yu bari ñi nga xam ne ñooy ñëw am palu grave mooy ñi nga xam ne dañuy jàng si école yi daara yi peut-être na da koy waral mooy dañu am benn siburu feebar siburu au lieu que ñu teel koo jël en charge ñu bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen palu grave boobu nag li nga xam ne moom mooy mandarga yi mën na nekk anémie nit ki mën na manqué deret manqué bu métti sax ba di mën na mboq trop tuur ndox bi mën nay mboq ba di ànd ak deret euh, nit ki tamit mën na di di crise comme xale yi nga xam ne dañu am sibru foo leen gisee seen yaram tàng ñuy crise rek gaaw leen yóbbu jamono ji mën na nekk sibru bu grave te loolu traitement bi dafay jër ñaar ba ñetti fan hôpital mën na lay nelawloo sax bu fekkee ne sibru bu oyof bi nag traitement bi yomb na dañ lay bindal ay garab nga naan ko ñaari fan ñetti fan mu jeex tàkk euh, kon daal sibru moom dafa nekk feebar boo xam ne nit ñi mën nañ ko war a bàyyi xel léegi nag faj mi toll na foo xam ne sibiru daanaka loratul kenn ci kaw boo gaawee dem hôpital nan lañ koy moytoo mooy ni may wax da ngay fexe ba moustique euh, anophèle bi yoo bo dootul existé wala du la màtt dootul existé mooy garab yi nga xam ne day sax ñu fexe bu baax ndox yi nga xam ne day taa ñu koy pompe wala ñu koy wàññi bu baax a baax te tëdd moustiquaire si imprégné moom tëdd si mooy solution bi nga xam ne moom mooy njëkk incha allah bii di ñëw dinañ leen wax sibru ak euh, nit ko jigéen yoo xam dafa war na lool jërë ngeen kër docteur Gaye àllarba bu jot fii ci UCAB FM